يرفت والنبي وارزقني كن الآن بيتي أدل عاجلا بالبشر مهما أجل فتاة وقيمة لدين الله أكرا سر دعائي طوبا وحمني وكني أتوا بإنس مسكرا قسما وأدي وحب بها مساكين يوم مسكرا أجب صلي بسلي من حسن ديما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñëpp waa daara bi ñu baax a baax jaare xam naa xam naa yëgul laaj yi nga xam ne room na na fi tey te tontuguñ ko xam naa te nag tey danaa bëggoon a feeñal sama taxawaay ci principal ak kenn xam ma ko leeral la ndax principal am na njëriñ ñu xam-xam yëpp am na njëriñ am na lool ñu xam-xam yëpp amee lool mën naa am maanaam falsafa du dara lu may jëfandikoom xel ci looy xam lu lay ñu jëfandikoo te xam loolu rek mooy falsafa waaye nag mu sam xel gën a mosoo mu gën a amee ay bagage ñu la xalaatin mooy di gën a yaatoo di gën a tëgu ci am xel kon xel ci bongoon dana ay yoon taxaw seetlu ba xam ay bagaas am muy bagaas yi nga xam ne ci lay ci lay laytaay ay juróom yi nga xam ne moom moom lay moom lay xaatami ay principe yu xam ne nga ne mënu ko génne ndax ndax tër yooyu sax tegu na ci xel wala déet wala tër yooyu xel ko xel ko créé wala déet ndax am xel su dee moo créé ay turam kon te mu église bam kon loola kan moo ko jox solta poids doole moo mu war a tër mu war a tëru dara te ndax ndax sax yenoon a maa sax am xel di tëral dara ndax ba muy tëral tëru ye kon moom fan la sukkandikoo tëru ye xanaa kon dafa amaat yenn tëru yu mu sukkandiku ba tax ma lay tay ay jëm kon loolu boo ko toppee kon bisu xam kon mën na jëm loolu kon dañ ci dégg ne kon dafa mel ne kon daal aada wala tàmm wala boog ak mu la ama xam ne xel mi su moom da koo mooñaaleeg muy diggoog dara lu mu diggoog lu nekk bu yàggee mu yaakaar ne ab luwaa la boo xam ne day day sax ci koo xam ne waaye kooku mooy koo xam ne nag du kii dig dëgg dëgg saa xeeñ dëgg war na toog ba càgg mu ne man kat li may li may xalaate ndax noonu la fan laa ko sukkandiku ba man koo xalaate noonu bu dee day wax ne maanaam léegi luñ may luñ may kewal la mu ne li luñ may kewal kan moo ma xamal ne ma loola wér na ndax am na ñeneen ñoo bokkal dindi bi lu mel ne malaaka yi jinne yi ak seytaane yi ak cabarkat yi kon moom lan moo lan moo may xamal ne ma am na ak aaru ba li may xalaat wér na xam ne kon boo boo ko toppee noonu da da ngay dem ba ci yàgg nga xam ne kon kat maanaam li garanti mënut a ñàkk te te garanti moom du mën a am ko lu may lu génn jënd bi mooy koo xam ne day taxaw di wax ne kat yàllaa ne ma waaye nag bu bu ne yàllaa ne ma ñu ñu seet ñu fii ba xam. ndax wa sax ba xaw mu faataw la ñu bañ a bokk maa xaw na dafa koy xelum ay gaayam ba ñu topp ko te bu ëllëgee mu leen di jiit antal du sa war a loolu kon moom du am njëriñ kon faaw xel li koy kes laayal te mu jàpp ne kes laayal di lu wér ndax amatul lu ko gën a wér loolu it faaw mu seet ko wa wa illaa loola loola kon day daal di mën ak ak lam lame ci daal di mën a juddu wala ak deng deng nga xam ne kon xalaatu nga kon laal di am problème lool nga xam ne kon moom ay problématique moom moom moom xaar képp du jeex xam ne kon moom xalaat waras na ko kii tigi ndax xamuñu ba xam sax luy xaar ko luy xaar xaar mooy lan maanaam loo xam ne day day fenkat rek ci conscience bi nit ay yëf yu bari di waxtaan xam ne ay dangay toog mu mel ne ay ay ay science ci ngay ci yow nag nga nga mel ne dangaa fekk yow jotaay booba mel ne sax yow bokkul la nga xam ne loola mooy xalaat léegi nag loolu loola yow dina bokkoo ca ëtt ba da nga ko fekkee rek waaye bokkoo ca waxtaan wa loolee ñuy wax ba yow fenn loola xamal ne la wér na loolu loolee xalaat ak ak ak dagg ak dagg gi sante la ci biir ëttu xel xel moom bokkut day déglu rek la ca gën a not mu ne nii la fa kañ bu ëllëgee mën naa gisaat lu ko gën a not mu sànni lam yoroon dem mu baax ba ko fa tëwee loolu bu dee ci làmb daj gi te mooy mida te mooy physique lu xam-xamu médecine nag xam-xamu physique physique chimique physique yëpp xam nga li nga xam ne xam-xamu matière rek la yooyu moom dara yooyu moom dara ñëw ci xaaxaar doxe noonu gis nañ ne avancement am na ci ñu ko defee avancement am na ci waaye bu dee ci nag sa diggante ak li la fi indi ko mu doon li la fi war lu mu doon foo jëm ndax da nga fay des di wéy wala da ngay def kan bi nga faatoo ndax da nga koy yem wala da ngay loola xel mënu ci dara dara dara lu may xool ne man ka tëri naa kon naa jox sama ntum jenn njàccaar loo xam ne dafa wax ne ñi ball loo ci lu kawe xew ñu ne ko ah ñu vérifié ba xam loolee muy ball loo ndax wér na am déet saa bu demee ba wér ñu def ci nag sunu kenn tulay kattan ba jeex takk takk takk takk takk takk su boobaa la ñuy jox ñu daal di koy nangu ndax pexe amul ndax bu pexe amoon sax ñu def leen mara su fekkee ñu daal di ah pexe day mën naa war a mën a am nañu jéem a ba xam médicament bi kooku di joxe ñu seet ko ba xam expérimenté ko jëfandikoo ko ne boo ko ne boo ko defee nangam da nga gis nangam da nga xam nangam da nga am nangam ñu def ko expérimenté ko seet ba xam gis ne kat loola day am na wér na am na sax buntu yu duggaat ci seen xol yoo xam ne buñ ko utilisé gul maanaam ubbi ko te loola leen mën naa ñi ñuy mën a jokkaloo beneen pays pour pays bii di xam ne kat pays booba moo gën a wér pays bii ne sax daanaka sax bii amut booba rek nga am loola su su fekkee ne ko loolu yiite la du am solo lool kon philosophie nga culture ko loolu may rek ay jéemantu yoo xam ne ay nit ñu koy jéemantu waaye aarut de jurut de nekkul lu am garanté mukk garanté moom mi ngi ci jox sam tum ku ñuy tuddee ab yonent bu yàlla yónni te ku xay vérifié ko ba xam ne kii kat li muy wax génn na nature bi génn na dënd bi te am na ay gislaay yu xew nangu kooka mu jokkom tum daal di daal di koy bàyyi nag mu daal di wéy suy wax nag ci àdduna moom kookee yàlla yónni nag ci àdduna ñu baax seen biir moom day xam àdduna ñu ko xamee nii ndax danga ko xamee neen ah kon kat antum adra bi umuri dunyakum ne kon baax na kon yow nekkal ca li ñu waxal la génn dénd bi te bàyyi ñu dénd bi loolu it mu xel kon mooy mooy doxe noonu lu am solo foofu ilmul kalaam nga xam ne moom falsafa dañoo niroo bokk ñooy benn rek la pàcc la mooy métaphysique ci falsafa ilmul kalaam ñu xam ne moom ilmul uruufiya ci lay wax loola kenn xamu ca dara dara dara dara dara lu may ku ñuy jekkiwal moo xam ab yonent la wala koo xam ne wàllu yu la suñu doom ubbi diire yi muy janoog secret di mën a décoder code yi. bu dul loola xamuñ ko dara kon ilmu kalaam li ñuy wax dara wéru ci du dara wala boog mën naa am lu ci xaw wér waaye dara wéru ci misaal ko dikkal ci benn tomb boo xam ne ñoom dañ koy wax naan buñ ne ilmu ilaahi yàlla kat xam-xam bi ñu ne kat ne ilmun la ñu ne xam-xam la boo xamante ne day wër lépp ba noppi nag xam ne day day day wuññiliku ci lépp ba noppi te amutoon ak ci raay te te te te ma ne leen loolu kat ñoom te la ndax ginnaaw dafa wuñu rek kon mooy ci lay amoon na kon kay dafa mel ne li ñu waroon a wax dëgg mooy ne kat xam-xamu yàlla ba li ñu ci xam-xamu yàlla xam-xamam ba mooy amal lu am mooy kun ci siixatu fi'l la waaye kun sifa lay doon foofa nga xam ne ilm lay doon ilmu moom bu iraade yëngoo ko ak ilmu wala iraada ak ilmu bu ñu amee ak jokkaloo su boobaa ñu ne jëf ñu ne am na lu juddu bu dee ak duggaloo amagut ñu ne juddu amul waaye ñu xam ne foofu it espace amu fa ak temps bañ naan jokkaloo ga ak jëkk bokk mujj bokk ak ak ak jëm yi jëkkaloo loolu loolu kon it waxee nu nature bi la làkk bu nga xam ne làkku nature bi la matière la làkku matière la moo tax du dana jafe moom moo wax lu absolu kon su su boobaa kon ku ne xam ne kon jumte kon amoon na boo demee ca ndax nit ki li muy wax ak li muy jëf force la yàlla ko ku bindee noona nga xamante ni jibli la yàlla moo ko bindee wala boog moo ko sabablu coow am ca jëmu mu sa fan ni ni déedéet lépp yàlla ndax wiital yàlla gi mooy nangu loola bu dee mos a ñëwee déedéet kon liberté kon du am te kon yàlla kon du mën a atti ëllëg nit naa ko da ngaa bon da ngaa baax sawar nga jëm mais kon bu dee maandu ko tëj ci ñuy xool al achar yi dikk ne déedéet kon daal li fi ne mooy jëf ji waa ji moo ko sabab lu yàlla nag moo dogal loola loola it ku ne xam ne ne moo ko jëkk yaa yem rek kenn ku ne ci ñoom lañ wax maanaa léegi waxi penc ma la waaye du waxi maanaa xol moo tax su fekkee digg ne ah yéen di def mel ne yéen ci xuloo yi ngeen di waxee waaye li gënoon na yàlla mooy moom ñu bàyyi ko borom ndax ginnaaw laa yaalamu laa illallah kenn xamul yàlla ku dul moom noonu kon duñu xam yàlla kon uluhiya mbir la moo xam ne xamuñu ko kon li ñuy wax mooy ya uluhiya moom mooy yàlla wu nga nañ ko fa baal di ñëw ci rububiyya moom gën a borom bi moom bunu moomee ku nga xam ne xel dana ne baaxul ku ñu moomee lu ñu fi dénk ñu ne ko xanaa nañ ko jaamu ma xartu dina way way si ilaa ndeex bi ñu ne kon nag léegi moom nañu seet li nga xam ne moom la jaamu gi def ak li gaar ko jaamu ko ñu ne kon léegi kat maanaam léegi bu dee noonu xor yi ja ak jabar déedéet nit ki lim soxla oo moom saa su defee ndigal yi ba tàggoo gàllankoor yi kooku am na liberté misaal ko ci dafa mel ne am xar rek ñu yow ko ci ak buum bu ngir juróomi meetar liberté mooy mën naa wuñ juróomi meetar yi waaye ñu ko jég ci loola mooy kon ci misaal liberté waaye liberté kon amut ndax ñi nga mel da ngaa ñuul ñu jaw mu nekk ñuul da ngaa xees mu nekk xees gàtt da nga mun doo nekk gàtt njool moo nekk njool da ngaa juddoo ci Afrique moo ne moo ko nekk juddoo da ngaa judd doon ab nit moo ko ñàkk noonu def da ngaa judd doon amul moo ko ñàkk def kon nga xam ne kon ni nga mel at ni nga juddu mënoo ko woon a jiitu at ni ngay dem barsàq mënoo ko woon a mujj kon lépp kon loola moom nguur yàlla gi si ne nit ku ca loola lañ soxla kay mooy noonu ñu tàggoog bàkkaar yeeg doy yi kon su boobaa ñu am liberté parce que roo gi mën a dox ku ne xam na ne roo bu setee dana mën a jéggi espace ak temps kon loolu kon liberté la liberté physique physique mënut a nekk lu may nga roo gi daal di am liberté ba mën a xotti déere yi mën a mën a toog fi mu nekk ci Sénégal jàkkaarloo Kaaba ga mën a toog ci Sénégal. nekk Amérique di dox ay yitte mën a soppiliku ñetti ñetti téeméeri jëmm ak jo benn fukk bu jëmm ju ne di dox soxla ba noppi du yàqal jëmm ji dara loolu kon liberté ab surile boo xam ne ruu moo ko mën a am waaye jëmm mënu ko am na jëmm espace ak temps moo koy tënk loolu kon ilmul kalam mooy théologie kon moo ko la philosophie falsafa seeni wax daanaka njëriñ la bëriwut lu may daj bi am xel ba mën a wax ak keneen koo xam ne bokk leen diine bu leen loola du lu ñuy fa fas de du lu ñuy fas lu ñuy xam la parce que xam bokkut nga xamante ne kon loolu mooy falsafa loolu loolu lu mooy yàllu kalaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu daal ñu bokk buñ bàyyee tari rek lépp jàpp waaw kon nag ñi bind wolof buñ bindee ci ci arafe latin yi de loolu colonialiste yi ñoo ñu ciy joo te man ca aratorku ca Turquie ba mu bëggee dox diggante al alxadara islamiya ak al ummal turkiya da dafa andi ñuy bind ci ci arafi latin gone yi juddu du du ñu mën a liir sëñ Moussa Ka ah du du du mën a liir sëñ Mbaye Jaxate de du du mën a liir diw ak diw li ñu fa jublu xeex boobu allah waxyu al istixmaar yi sous conscience bi xam nga nañ dañoo dañoo istixmaar istixmaar dañoo def ay mbaam te yëgu ñu ne ay mbaam lañ istixmaar boobu nag moo nu jiwoon nag ñu ne kan noonu nañ bind ci latin latin daal ñëpp ko moom latin ñëpp moom ñu ko de jàngal linguistique dëkk sëñ bi linguistique arafe latin moom tubaab la asira waaye du Afrique de hiéroglyphe yi seen am na lu ñu am na ñetti kitaabaat hiéroglyphe yi hiéroglyphe yi moo am ak ak kitaabal hiratiqiya ak ak kitaabaat dimo dimotiqiya seen kitaabaat yooyu benn arafu latin amu ci kon ku bëgg a wax ne kat arafu latin yi la kii la araf international déedéet wérul wérul wérul demal kon kay nga nga nga dem jël araf yi dimutiqiya bi alxarfu dimutiqiya wala al al alxarfu hiratiqiya wala nga dem ca Mali am nañu ay ay ay araf kon nañ bàyyi tari bi gars yi tari bi te am na leneen lu ñu war a bàyyi nekk ab arabistan wala afghanistan bi ba ñëwee ba fi nekkee fii xaw ma ci effet bi di kii ngaa yi defi ab wilaadiya woo ma ci may leen du ma dem ba ma soonalee ma dem may leen man. duma ab arabistan duma français ana daarisun bil luxa al arabia li aqra asati man jànguma arab de jànguma jànguma français li ma jàng mooy ay jumtukaay lay lay wut ngir jàng jàngat sama bopp suñ bi bu kenn nekk safiiru France fii bu kenn nekk safiiru arab saoudi doonal safiiru afriqiya ci biir afriqiya sama ci tànn boobu waaw kaddu googu kaddu googu mujj gi mooy mooy si si falu bu sa moom laay sargal man waxtaan yëpp kon sargal na nañ la ko sargal nañ ko sa donga yi kon ñoom bég nañ yàlla na yàlla bég yàlla na yàlla bég bu yàlla béggee ci ci noonu lépp jag waaye nag ilal amaam an nahdal ifriqiya mi war naa juddu de war naa juddu te yéene mustaqbalul afriqiya bu ngeen yoon njaxee afrique yoon njax kon nag góorgóorlu
alhamdulilah jërëjëf sëñ Moustapha wax waxtaan wi am na solo lool mu mel ni tanwiir gi ñu doon waxtaane léegi ay tajalliyaatam tàmbali na ginnaaw jataay bi ñi ko teewee ñépp war nañoo jàngaat seen bopp jàngaat sa bopp mooy lan jublu ca rek xam yaay kan